ak ak képp kuy senegale kàddu yi nag du mën a gudd dañoo ñëw fii tey ci Touba ngir ubbi si fii li ñu wax Jolof ci Chicken Jolof Chicken di loo xam ne ña ngi ko xamee woon ci yeneen tur danga daan génn dem ca France gis ko génn dem ca Italie gis ko génn dem ca Màkka gis ko génn dem ca Dubaay wala feneen ak feneen gis ko waaye turu feneen lay doon am na ñu ko jël ba indi ko jëlee réew mi waaye turu ñooña lañ maintenir waande Demba bi mu ko jëlee indi ko Sénégal daf ko changé euh, daf ko localiser ko localiser ko mooy def na lu mel ni la ñuy def ba pare tudde ko Chicken Jolof nga xam ni produit yi ak ak ki koy produir ak ñi koy produire ak noobeeg lépp Sénégal la kon nag loolu nekk lu am importance may lancé autorités yi autorité étatique yi ku mel ni kii réew mu ko am danga nga koo war a jàpp ndax gannaaw créé wutal ndaw ñi liggéey ñoom la war moom mu jóg taxaw di wutal ndaw ñi liggéey boo xoolee fii ci sama gannaaw ñii fi ne ñëpp ñi ci ëpp ci dëkk bi lañ leen jële bi ci ci lii koñ bii nu wër bi mu fi duggeek léegi kon dèjà emploi yi ñu doon ñëw di ko jéem a créé fii moom créé na ko fi créé na ko Ndar créé na ko Dakar créé na ko Diourbel créé na ko feneen ak feneen partout ci ci Sénégal daanaka jàppale bi nag nekkul jàppale lu ñu koy jox wala leneen waaye yombalal ko liggéey bi ak ñi mel ni moom ñëpp ndax nit ki li nga xam ne daf laa war te nga néew ca doole ki koy defal kooku defa naa bu ñëpp defoon ne moom euh, sab liggéey dana gaaw buñ xoolee ñaata emploi la dem ba créé ci ku wuti sa xaalis ba am ko mu wóor la ne da nga am mënoo koo jeexal ci sa dund boo ko dencoon ci bitim réew weer wu dee nga coppate ci dara lekk yaag sa njaboot munoo koo jël nga ne déedéet dama koy delloo si ci réew mi jël doomi réew mi àndandoog ñoom bokk ak ñoom li ma am service Sénégal def loo nga xam ne même lu yàgg-yàgg itam loola dootu fi jóg ndax kenn ku nekk xaman na ni kenn mënatul buddi station yi fi nekk kenn mënatul buddi ci kenn jula fii fi nekk ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon nag ku mel noonu doomu réew la boo xam ni bu ñu war a tiitaroo la ku ko am da nga ko war a tiitaroo ñun nag fu ñu gisee nen dañ naan nen a ngi nii fu ñu gisee ku def lu baax itam ñu yëkkati ko ba ñëpp dëkk ko ndax ki ci nekkoon xam ni meñ ci lu baax ki ci nekkagul woon jàpp ni lii war na cee nekk eh, jëfam ju jii mu jëf ci Touba rawatina nga xam ne ubbite gi kilifa yi yëpp waroon nañ cee teew tey jii waaye yàkkamti gu ñu ko yàkkamti ak bëgg mu gaaw ñëw ci dëkk bi ak lu baax boo koy def doo ko waaj moo waral woowuñu fi ñu baree bari waane yaakaar naa ni ba ci fan yu néew ñëpp ci kilifa yi dëkk bi incha allah kenn ku nekk dinga nga dox ak sa tànk ba ñëw fii xam ni eh, jëf nañ fi jëf ju baax joo xam ne ju amal njariñ nit ñi la te yow lañ ko jëfal ndax li ma wax léegi nii rek koñ bii nu nekk dong am mbooloo jëlagun nañ leen fi barki démb bi mu fi duggeeg léegi kuy créer emploi noonu ngay def da ngay jëf te doo wax moom de moom day kenn du ko seen muy wax kenn du ko seen muy wax te foo foo romb ci Sénégal di nga gis jëfam te wama sayidna ila maalim te itam dëgg moom moom moom ko moomu ma ko keneen moom ko yàllaa ko moom xulil xaq walaw kaana murran alxaqu min rabbikum dëgg yàllaa ko moom ñun fu ñu gisee dëgg rek dinañ ko wax ku mel ni kii ku am war nga koo jàpp war nga koo jàppale war nga koo yombalal te xam ne li mu def dëgg la mi ngi koy defal boppam ngir sunu borom mi ngi koy defal boppam ngir jullit ñi mi ngi koy defal boppam ngir Sénégal waaye nag état bi mën naa wax ni jëfi dem ba li ci ëpp ñoom ñoo ko moom ndax waxtu wu nekk nga gis gone yi manifester pour am liggéey waxtu wu nekk nga gis demandeur de emploi yi fu ñu tudd liggéey mu fees dell yow nga ne kaay ma jël wuti sa xaalis bu ñëw ni kaay ma jël leen ngeen liggéey te teguma leen dara kenn kuñ mas a jël fii muy liggéey nga joxe inscription wala nga ñu ne la demande demande de bi nangam ngay joxe pour déposer wala nangam nga amul te ngi jël nit ñi ko jàpp te jàppale ko te xam ne doomu Sénégal la boo xam ni Sénégal moo ko ñor te waxu ko da koo jëf mi ngi service Sénégal ñëpp di ko gis ñu di ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudd yàlla may ko wér moo ak njabootam euh, yàlla yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha yàggal fi sëñ sëñ Babacar Sy Mansour te lii mu ubbi Touba ba am fi yaakaar bu ubbi ko mu ubbi fi yeneen mu am ca la bëgg ba ubbi fi yeneen ak yeneen ndax euh, euh, Serigne Touba moom mbiram moo tëdd noonu lii lépp. waxoon na ko démb ak bët ki démb kon képp ko nga xam ne yàlla dogal na yaa ngi jëf jëm ci kon sunu borom moo la baaxee loolu ndax sunu borom mooy melal nit mu ko soob yolu yuddi li man yasa wa yeex yahdi man yasa kon lii sunu borom baaxee ko ko jagleel ko ko noo nga ñaan yàlla mu am na ci ndam ba noppi waaye xanaa mu gëm mu gën ci am ndam ndax kenn ku nekk xam na ne moom am na ndam ci Sénégal gii ba waaye nag xanaa mu mu mu mu gën a tee am ndam ndax jikko ju rafet ak nangoo liggéey ak bokk ak Sénégal li nun de loolu moonu booleeg moom waaye amul leneen loo xam ne di dinañu booleeg nit lu dul leen gis ci moom euh, di gërëm sëñ Abo mi te di ko sant bu baax moom mi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha yebal moom la fi yebal ñu di ko gërëm te di ko sant ndax lu mel nii fu amee ci Demba li ci ëpp man ak moom ñoo fay daje mu ñëw teew fa teewal fa teewal fi sëriñ bi li mu wax doy na sëkk waaye nag ñun li ñu sëq ak Demba xam ko ci moom te te te te te nekk quelque euh, xëy na nu nu nekk ki gën a suufee ci réew mi sax waaye du tere dinañ tàllal suñu kàddu pour ñu ñi nga xam ne buñ waxee ñu déglu na ñu ñu dégg ko kon ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp tey ñaan yàlla mu def jàmm ci béréb bi ñaan yàlla mu def ay xéwal ñaan yàlla waa Touba jariñoo ko ñaan yàlla personnel bi yàlla sàmm leen ba benn jéyee du fi am te li te liñ fi bëgg ñu amee ko ni ñu ko bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullah